da ko war a changé man Macky Sall bi ma gisee muy muy xuus ci ndox ñett nit laa gis ñu topp ko ñett nit laa gis ñu topp ko oh. premier ministre baax na ah. na jabaram toog ci wetam beneen jigéen toog ci ñaari jigéen la war a la war la war a dendal ñaari jigéen la Macky war a dendal changé gouvernement am rek dem ci kan